Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et, la, et de la Protection des enfants, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les assemblées du travail aussi, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mais très chers collègues, Madame la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter vous féliciter de votre reconduction à la tête de ce département qui est très important. La femme, la famille, le genre et la protection des enfants. Et vous avez bénéficié encore de la confiance du chef de l'État. Cela dénote de votre même, capacité à bien manager les choses à la tête de ce département. Je voudrais aussi saluer tous vos collaborateurs, les hommes comme les femmes, comme on a parlé de genre, en commençant par le directeur de cabinet, le doyen Siré, qui est quand même une icône au niveau de ce département et toutes les autres femmes, les Kankou et les autres directeurs. Madame la ministre, je voudrais juste faire un plaidoyer au niveau quand même euh, de vos financements. Parce que quand même, on a, on a dit genre, et le genre, c'est pas quand même, euh, c'est hommes et femmes. Et vos financements ne s'adressent qu'aux femmes. Donc je voudrais vraiment vous demander pourquoi souvent aussi, vous ne... il faut regarder un peu de l'autre côté parce que chaque fois quand on voit le... Madame le ministre se déplacer, on voit, d'ailleurs vous avez même vu aujourd'hui, les femmes se sont, sont venues tôt, ce qui n'est pas d'habitude euh, le cas, bien que... Non, ils viennent tous les jours, mais pas très tôt. Ils se sont très bien habillés, ils très bien habillés, vous les avez vus, parce que ya a le ministre de la Femme. Donc vraiment, comme on a dit genre, Madame la ministre, il faut aussi regarder du côté aussi des hommes. Parce que même ici à l'Assemblée nationale, on dit parité. Ce qui manquait un peu, c'était au niveau du groupe parlementaire et ils se sont battus jusqu'à avoir une vice-présidente. Donc comme on a dit genre, fu ñu wax góor wax jigéen waaw li ngay joxe nag yo tamit boo joxee góor jigéen loolu aussi c'est important mais aussi euh, dire que nous avons suivi madame la ministre vos déplacements nous avons suivi le travail que vous faites pour le financement des femmes ce qui est important c'est que vous êtes un ministre qui écoute toutes les couches de la population et ça c'est important parce que quand on est ministre de la femme on a besoin de rencontrer les femmes mais aussi toute obédience confondue muy pouvoir opposition société civile képp koo xam ne jigéen la nekk ci Sénégal war nga ko mën a déglu te gis nañ ne quand vous vous au niveau des localité dañuy gis ne da ngay dajale ñëpp boole ñëpp loolu nag ñu la ci gën a ñaar parce que jigéen dafa doon loo xamante ni dafa sacré te fépp fu mu mën a féete mu nekk pouvoir comme opposition li ko gën a intéressé mooy la société mooy la famille mooy le devenir des enfants et aujourd'hui même immigration clandestine bi nga xamante ni ñu ngi koy wax war nga am yow sa département liggéey bu am solo boo xamante ni war na ko ci mën a def parce que nag jigéen ñi ñoo war a gën a nekk sur le terrain te ñoom aussi ñoom ñoo gën a am écoute xale yi parce que tey jii keroog maa ngi koy wax je suis parti ci benn école boo xam ne sama xale yi fa lañ nekk mu am réunion des parents d'élèves sur 40 parents ñaari góor rek a fa nekk xam nga loolu gàcce loolu li muy waree mooy jigéen ñi ñoo gën a am quand même ci xale yi parce que góor ñi moom dañuy yaakaar ne suñu fayee rek euh, fin du mois ñoom seen jaan wàcc na alors que nag euh, doom ñaara koy def jigéen ak góor donc ku ci nekk am nga responsabilité mais seen responsabilité jigéen ji dafa euh, am solo am solo boo xamante nii moo tax ma jàpp ne loolu sa département war nañ ci gën a am lu ñu ci liggéey mais loolu nag aussi dafa ànd ak ay moyens monsieur le directeur général du budget je pense que le ministère des finances devrait davantage accompagner ce ministère l'accompagner pour que mu am ay moyens yu am solo doy pour que mu mën a mën a liggéey am ay résultats parce que su fekkee danga am ay résultats danga nga bëgg ay résultats te amoo ay moyens yoo xamante nii dina tax nga atteindre ces résultats je pense que dafay metti mais doo mën a am ay résultats donc loolu daal mooy li nga xam ne madame la ministre bëggoon naa ko wax di la encouragé waat bu baax di la félicité di félicité say collaborateurs di la ñaanal yàlla gën la may kattan boo mën a répondre li nga xamante ni moom mooy euh, li nga xam ne moom la la président de la république